tey ñu gis si soirée Chérifou Diop sa Diop sa Brens. sa diggante ak ñoom sa waaw maa ñoom nag dañoo bokk fa ñu dëkk ba pare bëri na samay son yu bari yoo xam ne fa ko xalaatee man ak ñoom benn ci son bi ma naan kër gu nu romb sone daw. naan ko tin tin loolu noonu ñoo toog ci biir kër gi ma génn ci buntu kër gi rek sone benn kër rek daw Diop ne ma pour pourquoi lii mënuñu ko def son ma ne ko acca ba ci góor day dëgër jigéen dafay nooy foofu la lépp fa lañ ko defee. ñu nekk samay xarit ñuy liggéeyandoo ensemble man ak ñoom ñu yàgg lool kon nag bu ñu wootee tey dama waroon am lu ma leen see benn mariage mais dama ko bàyyi barke sëñ Touba ngir seen guddi gi ñuy samay xarit nag bu dara sa géejuwaay gi ñu bokk dëkk looloo ma dàqal lépp. que dama jàpp ni lépp doomu géejuwaay la parce que doomu géejuwaay bu wootee Sorano mu fees dell lool suñu fierté la comme ñun ay doomu banlieue lañ kon suñu fierté la ma leen di ñaanal nag affaire yi bii di ñëw ñu def ko grand théâtre wala ñu def ko Bercy incha allahu rabbi man de yàlla def na ni moom taasukat yëpp bëgg bëgg nañ xaarim temps xaarim temps bëgg nañ la bëgg bëgg nañ xaarim temps xaarim temps bëgg na leen parce que gars yi dañoo bëgg ko mën man nag maay taalibe maa gën a niil ci taasukat yi waaye yàlla def na ni lu ma génne xale yi bëgg ko Mm-hmm. sama rakk la ñu bokk ndey ak bàyyi ñoo léegi sax faf ñoo bokk label ba ñu nekk. Mm. mais problème am na mais problème am na. waa koñ bi yéen a ko doon am na. Eh, xam nga ñun ñoo koñ bi. ñu dëkk ci koñ bi mën nag dëkkuma ci koñ bi. mais problème amoon na xaalis. Eh, non koñ bi mm-hmm. koñ bi non koñ bi moom boo ko déggee. Mm. sàmba Diar ak Ousmane la. te nag loolu wax dëgg fa yàlla xaw ma ko moom koñ bi dëkkuma ci koñ bi bokkuma ci koñ bi. <laughs> xaaral macha allah ñu gis actuellement euh, milieu showbiz bi. Hmm. rivalité bi si nekk yàkkante bi. Hmm. récemment si cas Wally Seck ak Sidi Diop. Hmm. duñ la dékk suñu micro te duñ ko laaj tey bu kii génne suba kee génne lee bu kii génne clip keneen ki génnee leneen lan nga gisee loolu. li ma gisee loolu diggante Sidi Diop ak Wally xam nga nu ma ko gisee man xaarim temps heure bu ma yeewoo julli ba pare sangu ba set taal sama oto dem studio répété samay morceau génne samay son nii de laa taal du dëgg. mais da nga si wane ki am na xolo xolo am nga loolu si dund lu métti yàkkante fan nga ma doon laaj. ne ma xaarim temps Papa Ndiaye Coppet ak Dame seen wala nga ne ma xaarim temps ak Bass Thioung. mais porteur de waa nga comme ñoom. porteur de voix la waaye xam nga man mbiru way man taasu laa mën te taasu ne. tey mais ma leen ñaanal ñoom ñoom ñaar ñëpp seen yoon baax na parce que aar nag loolu mënu ci ñàkk. Mhm. parce que ñun ñëpp showbiz la ñu def du ñàkk xiiroonteeg ngaayant mais loolu ci aar la bokk mais nag na gën a rafet rek parce que aar moom du làmb du combat ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay parce que tey man d'accord uma Mara tey nga toog publiquement wax lu rëy xëy suba na ne diw sama papa père nangam naa non non bi dàqalu ma man dama bëgg lépp rek ñu koy teg ci yoon. loolu laa loolu laa tuddee hypocrisie yi loolu laa tuddee hypocrisie xam nga hypocrisie hypocrisie dafa am ci biir mi yëpp àndoon leen. booloowu leen nekku leen benn wax nga ko léegi. man man xaadim temps Mara. Mara. comme yow ñaawoon nga ko ba mu ñaaw. yow. Mara mais Mara laaju la man maa la laaj. hypocrisie bi. xam nga moo ngi ci parce que tey jii da ngay toog ne xaadim sama xarit la génn yàq ko yàkkante bi am na. waa xaara xam nga Mara. man bul toog Mara man ngay waxal. ma Mara xam na ma. sama doom sa saa xam na ma fa saa xam na kuy xaadim temps papa xam na ma. Euh, Matar Waale xam na kuy xaarim temps mais man maa nekk artiste boo xam ne barki Seydina Mohamed bu ma neexee ma taxaw ne art art bi maa ci gën parce que du ma mer ñëpp laa bëgg bu ma heure heure mesure ba pare li ma am du wàcc seen bi ñëpp maa gaayee koy bokk caméraman yeeg interview man yeeg ñëpp balaa maa dem sama oto laay gaare et puis ñi war a am lu ne ma jox la barki Sëñ Saliou man xeexuma xuloo ma mais hypocrisie am na de booloo woo leen de rama rama booloo wu ñu de. man de yëf yi man xaadim temps bu ma xewle damay woo Bastung damay ñëwal Samba jaara damay ñëwal Bakaay Mbay damay ñëwal ñëpp lañ may ñëwal mais affaire du maa mën ku mën dañ la koy waxal xam nga kañ ko kañ la doon neex ñu géewal ñëpp def ko arène kenn ku ne ñu jox la micro bu baax ñuy xam ku mën waaye man na xooloo ma yàlla def na ni ñëpp samay xarit lañ. parce man dèjà benn def naa ak benn son mi ngi toj àdduna li coow li bari bari may ko ko waral maa Jela ñoo ko def te son bi Jela artiste bu ndaw la xale la waaye tamit Jela lu mu mu am ay 3 millions de vues millions te benn artiste mag am ko fi kon Jela artiste mag la def nañ morceau def naag ay de Samb son bu doy waar war na génn bientôt def naag. arsi ma defal bari na mais lépp loo gis ci àdduna dal da cee baax ak tey yàkkamtiwuma dara son yi nga gis mu carton yëpp maa ko génne commencé maa waxoon ami ji mbe lu mu ma jaaraat mu naan ma bàyyi yaay ku ma génne. balaa mais dégg ma da tëgg mu fees. sa sa sa sa guichet yi lan la sa secret. xam nga sama secret nekk taalibe nekk Baay Faal séq ak ñëpp jàmm gis nga doomu aadama fi ma dëkk muy géejawaay dañ maa bëgg. di ma jàppale bu may tëgg barki alxuraanu karim dañuy mel ni man damay sax ruus parce que gars yi dañ may dooleel trop trop trop fayeef laa tëgg soirée oto jàllul man maa ko def ci taasu maa tëgg fayeef mu fees ci kaw fees ci suuf kan moo ko def intéressant non Sidi déggoo ma la dama ne la ci taasu tak man maa duy fayeef ba mu fees del intéressant cinq mille VIP dix mille jaay deux millions cinq cent prévente amul fenn yàlla def jàmm merci